okul Serigne Abdou Karim Mbacke doomu Serigne Fallou baa ngi noonu fas yéene seet si ñi nga xamante ñoo koy defal fii ci jokkul macha allah ñuy am solo ci suba ba léegi kuréel ñu ngi fi isbu yi def fi. Yamal. Radhe be. Yeah. Hare من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نيو نيو مبوك جوليت ييب دي نيو مبوك طالبي بو باخ كين كو سي نيك نيغي لاي جوخ سا واتي واي تبارك الله دي نيو وا دايره بي بو باخ واي دي نيو كيغا خامني تبارك الله بوني في تيوي تاي ànd ak waa télévision bi di VA TV yàlla mu ngi ko jaarale ci jëmmum ñu gën ko xam Bullaal ñu gën ko xam ci bul Bullaal tabaarakallaahu nekk suñu directeur général kon ñu ngi koy ziar bu baax baax di ziar rakkam yi ak ñim bokkal mbir mi yëpp rek kenn ku ci nekk ñu la jox sa wàccuwaay ziar Serigne bu baax moom day sama soppe yàlla dogal ma bëgg ko lool di teew lu ay waxtaanam yàlla yàlla barkeel eh, ñi fi jóge di ay kuréelkat jànkatu xasida lépp luñ fi wax ci xasida ak ay xasaayit yàlla na ko suñ borom bi dafay xéewal tasaare ko ci àdduna bi yépp ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñun nag dañuy ay tàggkat yonent bi Serigne Saliou sun borom dogal ñu soxé ko ci wa kër cheikh abdul qadir jaylani kon bu ñu téwé ci bërepp bi wacc na ndax défé na ni eh, jëm yu mag yi di ay kilifa yu baax ta tét ñom seeni jamono lepp dafa rafetone kon man suma téwé fi rek wacc na ma ngi nuyu ñëpp ma sha allah rabbi jëre ngeen jëf أعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 لا تعبدوا جنة ولا نوم الله ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي له إلا باسمي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون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 الحمد لله الذي خد البرد بأنه ليس له كفوا أحد ولم يرد ولم يكن خد خيرا له شريك في الذي منجرا ولم يكن لجاب الكتاب سيحصل منا ولا يرى نزيد وزيم جاو يحت بالعين شهنين بالعين وتفسير أن وصلك وكريم يلا مكنا وكريم yàlla màgg na wa rahmati mu siite mooy borom yërmande wala ba jënda ca sax lool moom yàlla fi gën a bëgg Seydina Muhammad ku fi gën a bëgg Rasulullaay loxo ca ko ñu màggal Muhammad Rasulullaay sayyidina muhammad sakirin bi ñun ñep ci dara jam la ñambe muhammad rasulullah sakirin bi nahman tahramu anzila afu ibadallah fi majji wal ula nabiyin lawon ahlan jinani mu bawo bu sopp yenen ci bi digo taxaw ci goñu magga sayyidina muhammad muhammad rasulullah muhammad rasulullah muhammad rasulullah muhammad rasulullah muhammad rasulullah muhammad rasulullah ñëpp wax sallallahu alayhi wa sallam ñu màggal gën gi mbindéef yent yàlla muhammad sayyidina muhammad xanaa xamoo ni fii ku fi baax ba ñu dina yaakaar way nga kii texel jaan ñee kookoy Muhammadu Rasulullahi déggal bàyyi basak baara maami dana Cheikh Mbacke góor gi taw la Moustapha Catloo Murtada bàyyi Serigne Saliou ku sopp Serigne Saliou Mbacke ne nañu màggal Serigne Saliou Serigne Saliou Serigne Saliou ku fi gën a bëgg Serigne Saliou Mbacke ci ko ca ko ñu màggal bàyyi Saliou borom janatul maxwa Serigne Saliou Sëñ Bamba nee buguma dom buguma alal kenn rek la bëgg ta moy sayidina muhammad ñu nek bamba bindal mu ne maha mahabbat yal muhtara sayidina bil mal la ni wala da dami wa ahli wa uladi fidaa lawo an al khadim allah muskanani sanada ku sopp serigne touba loxo ci ko ñu magal jojo way sëriñ maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ maam Cheikh Ibrahima Fall bëgg Cheikh Ibra ne nañu màggal maam Cheikh Rafaal maam Cheikh Rafaal maam Cheikh Rafaal maam Cheikh Rafaal Amat Faal Seer Njaay Biram Njëgu Maca Ngaay Kër Jëgu Baay Lalla Faal ku sopp Cheikh Ibra ne nañu màggal jooja waay maam Cheikh Rafaal maam Cheikh Rafaal maam Cheikh Rafaal ku sopp maam Cheikh Ibrahima Faal ne nañu màggal daa bay maam Sey Njaay xanaa xamoo ni bu duloon ak maam a Fall Bamba réer ñun ñëpp ñu daal di ñibbi ku sopp Cheikh Ibra ne ni ñu màggal jooja waay ne ni ñu màggal jooja waay maam Cheikh Ibrahima Fall moonu wan Bamba te defal ñu ko tawféexu jàmm àdduna ak alaaxira ci barke Sewul Xadim kon su ko defee Serigne Saliou Samb dañ lay daal di jox waxukaay bi rek nga def na nga daa def jaar fa nga daa jaar bokk taalibe yi su ko defee njariñ li gën a yaatu kon su ko defee Serigne Saliou la ñuy daal di jox kaddu gi mu dugg ak ñun ci waxtaan wi. Thank you. Serigne Saliou Saliou Saliou Saliou Saliou. Salaamu ala man la nabiyya ba'dahu. سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا أحمد القديم وعلى قدوتنا العظيم عن شيخ إبراهيم فالباب المريدين بركب شيخ عبد الكريم بركب فردلو muy sant yalla bu baax diko joyal mom sunu borom bolem xeti cyant yi ngir moko yeyo di julli ci sayyiduna muhammad sangub sangi way no ngi fadli wat sunu kolute ci amadou bamba di balu haq bokk yep di len bal te ñaan yalla bolem jegal ñu ñaanal ñaanal ñaanal cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla yàggal ko fi lool te mandaa ko wér koy ñaanal sëñ Amdi Fall moom sëñ Moodu Mbend ndam maam Cheikh Ibrahim Fall mi toogee jotaayu Cheikh Ibra waaye di ñaan sunu wasila wasila wasila wasila xam ni moom la ñu yàlla tànnal boole nu ak moom mu dox sunu digg ak seex Ahmadou Bamba di seex Abdul Karim Mbakke Fadilu yal na yàlla yàggal ko yal na yàlla wéral ko lu mu yéene yàlla na dox ba teg ci bëtam ci barki seexul Xaadim moom yàggam fi njariñu jaami yàlla yi la te alxuraan a waxoon wa amma maa yanfau nnaasa fa yamkusu fil ardi sëñ Abdul Karim ca ñooña la bokk yàlla na fi yàgg te wér ko ñëpp wax dinaay faral di wax ni li ëpp ci jamono fi mu toll nii li nu xam ci moom mooy am aajo ñëw mu ñaan mu faju waaye ànd na ak lool day faj aajo àdduna faj ko alaaxir mooy jikko yu rafet yi mu la li ko muur nag bëti nit ñi loolu mu yor li ko muur bëti nit ñi mooy gàddu sa aajo mel ni ku ci jaaxle ñëw mu tufli la mu faj waaye mission bi sayyiduna muhammad andi woon sallallahu alayhi wa sallam ku taqoog moom te koy bàyyi xel sa aajo jooja dana faju te aajo jooja bu fajoo nga réussir fanu jëm ndax yàlla nag dafa wax ni yawma laa yanfau maalun wala banuun illa man atallaaha bi qalbin salimin yàlla nee na doom yu bari du jariñ fii bu ngeen yegsee alal ju bari du fi jariñ mel ni dañ ko sunu borom kon lan lan lan war a ëndaale bu ñuy ñëw pour réussir ci yow mu ne xalbun salim xol bu mucc ayib Sëñ Abdou Karim jàngoro yi xol bu am ayib lay fay kon li mu yor njariñul aduna la ak alakhir motax ñu war di ñaan ñu yagg fi tele ku and ak mom te bayiko xel sa xol dana fay yal na yalla yagal ko yal na gëna réussir mission bo ci barke alay fallu mbacke way juroom bu baax ñi nuy mbolo mepp nak waaye di jël mboolem nuyoo yi ak daraja yi di ko teg ci loxol sunu ndey daara ji soxna Fat Bintou Pouye nii nga xam ne sunu jotaay bii mënu ko kulóoral nekk ci peggu Cheikh Abdoul Karim Mbacké Fadilou te nekk fi di ko defaral uuf njabootam yëpp yëpp yëpp xamul guddi na na na xamul naaj na ci soxla sëriñ bi ku sëriñ bi jabootee lu xew ci yow mu jàpp ni moo ko war a taxawee day am wax yoo xam ni day yomba wax ndax yow mi taxaw di ko wax da koo dund ak yow kon wax yi may wax du wax yuñ ma nett lu mu jëflante ak man la jëflante ko ak képp koo xam ni sëriñ bi jaboote na la tegale ci kër gi cib taxaw ñoo ngi ñaan yàlla mu yàggal sa taxawaay ñu ngi ñaan yàlla mu wéral la wéral la wéral la mboolem loo bëgg yàlla na yàlla peeg ko teg ko ci sa loxo ci barke alaaji Fallu Mbàkke nun ñu lay safoo lañ ñu lay bégee lañ ñu lay bàyyi xel lañ ci bu ñu la gisee ak bu ñu la gisul ndax nun li ma wax léegi bi may tàmbali yoon wi yaatu na lool sëñ Tuubaa boole nañu ci ñi muy loo nga xam ne fu ne la dugg ci yoon bi amuñ frontière ci yoonu murid Saliou Samb amul frontière ci yoonu murid man ëpp fu may yem ci yoonu murid fu sëriñ bi yàgg rek pour Cheikh Ahmadou Bamba bi fu mu yàgg rek sama tànk bii mën na faa teg ma waxtaane kon loolu dootul Sénégal adduna wërngal këpp la fu turu sëriñ bi yàgg rek xam nañu ma fu sëriñ bi yàgg ci bi rek xam nañ Saliou Samb kon man kon man kon man du ma murit bopp damaa toog ci benn ruq waaye bi yooyu yëpp xewee xewee Serigne Touba Cheikh Abdoul Karim Mbacke Fadilu la ma tànn mu dox sama digg ak moom moo tax moom laa gën a fonk ci nit ñi ndax man xam naa kan mooy cheikh ahmadou bamba ci man may faral di wax may waxtaan yu bari ni sama bopp day metti moo gën a wóor suñu bopp day metti man xam naa kan mooy borom tuba ci man kon ki dox sama digg ak moom duma ko yamaleeg ku yàlla sag amul ku ma yamaleeg si ñoom bu karim bati fëri moo gën a ñëpp moom laa teg sama bëdd moom rek laa xool rek laa xool rek laa xool rek laa xool rek laa xool li mu bëgg laa bëgg a xam ndax suñ mag bi suñu mag bi suñ mag bi suñ mag bi daf maa def noon maa def noonu maa def noonu maa def noonu maa dinaay faral di wax ni bu fekkoon liy nit moom moom Cheikh Ahmadou Bamba bokk ak ñun jamono sax ku ko tudd Saliou Samb war naa déglu ba xam looy wax ci moom li tax mooy la mu wax ni yaquudu li manafi al buldaani xatti bila adan min al abdaani daf ma cee boole bis bu ne ma recevoir xaalis bu jógee fu ma xamul réew ma mës talib yaquudu li manafi al buldaani yàlla ak may wommatal njariñ muy bàyyi ko ci réew yépp bis bu ne mu dal ma waaye nee na xat yi nag loolu rek laay nettali sama mbind mi bila azan min al abdaani du ma téye sax tournevis waaw bu fekkoon affaire bi foofu rek la yem te mu leer nit ñi ne ku bëgg teraanga da ngay dem sonn mu def ma nii mu ma def ku la ko def nga war koo foog te moom laa yaakaar alaaxira moom borom Tuubaa kon ki dox suma digg moom du ma ko yemale ku yàlla sàkk yemale ma sëñ Abdou Karim ak kenn moo tax yéene ma gënal ci nit ñi lu sëñ Abdou Karim am ak fu mu mën a ne loolu laa bëgg gën a jege parce que lii yàlla bindaale ma mu doon nelaw ci man moo ko yee kon xam naa moom mooy kan ci man moo tax wala fii dañuy wax communicateur yi dañuy wax baat bu am solo dañuy wax koo xam ne boo diisee ñu yanu la boo fee ñu yanu la boo woyofee noppal nga ñi la ñi la war a yanu maanaam yow boo meloon neneen man dama lay yanu par force rek mi noppal nga ma yàlla na nga gudd fan soo ma yëguloo ne dinaa la jéem a yëg par force su la yàlla bindee woon nga ñàkk a yëg man dinaa la yëg par force parce que ki ma bëgg a yëg moo la yëg waaw waaw waaw kooku lu mu yëg rek yëgaale na ma Cheikh Abdou Karim Mbacké Fadilou yàlla na nga gudd fan yàlla na nga wér yaay booy waa bi loolu amee ba pare loolu yëpp bi mu amee ba daje nga wàcce sa bopp nag ñëw bokk ak ñun sunu lépp kenn ku xewle ci ñun bala ngaa am jàmm rek ñu ni ko soxna Fatou Bintou la yónnee lii amul dara looy yëg ci ñun te sa loxo ñëw ci waaye yu ndaw yooyu yow danga koo xeeb bi nga ko defee nga ko fàtte waaye ñun ay lan bi ñu ko defalee ba tey fàtte wuñu ko de moo ngi suñ bopp yi ndax ay gor lañ nag gis nga as gor maa ko yeyoo saa boo ko déggee kooka dus got maa ko yeyoo lu ñu la defal nga ni maa ko yeyoo Saliou bokkul ci ñoom man murit bi ma dab jox ma juróomi dërëm ak murit bi ma dab jox ma deux cent mille ñoom laa yemale parce que kenn moo tax ñu jox ma ko man foofu laa de waaw léeg-léeg kenn gàddu dara jëm këram seen la sànni ko ci sa ginnaaw oto bi dafa am ku la remplacer instant boobu waaye xam nga ni joxu la ko bi mu koy jënd doomam yee taxoon am de am de am de am de am de xaal mu ndaw mii rek nga xam ni 1000 francs lay jar léeg-léeg nit gàddu ko nii waxtu tisbaar jëm këram xam nga jox ko ay doomam a tax mu seen Saliou Samb ci kanam oto bi teg xaal bi ci ginnaaw oto bi dem waaye waaye jox ko Saliou Samb daa am ku remplacer Saliou Samb instant bi ñuy dugal xaal bi ci oto bi yàlla na ko Saliou xam man doxuma ci maa ko yeyoo borom ko ci kaw ci kaw mboolem taalibe yi nga xam ne moo doon waxtaan sànq muy Serigne Saliou yàlla na yàlla yàggal la fi te may la wér di siyaar sëñ Xaadim Faal ak sëñ Aliou Badara Mbuy sëñ Jébi Njaay suñu jëwriñ sëñ Alsaan jërë ngeen jëf ak soxna yu àndal yépp nag bàyyiwuma kenn ya rabbana innal wara لعليائك مان ليصفوا إليك يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكن لنا وجه لنا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 حديمك الذي كفيت الملا صلى عليك أبدا مع سلام في الآل والأصحاب ربنا سلام حس مقاما حس مقاما دونه كل مقام يا نور كلها بذل زم وغاب أنت الذي أخرجنا من سلام بك لنوري من خباك بالكلام بصرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سعيا ستما أنت نبي ورسول والهمام بك الخيانة سالخين الإزمام يا سيدي يا سيدي فانت سيدي خير لنا نويت سمره عليك كلها وكل سهر والكتاب لديا نويت سكره عليك بالخير وخيرها يا سر جوامع الكلام ci yonent ni sant seexul xaddiim di ñaanal seex muhammadul muntaxa mu yàgg fi di sant tey ñaanal buntam seex abdul karim mbakke faddilu sa borom yàggal ko fi lool ci barke alaaji Fallu Mbakke mu wax nu ni moo ngi nuyu nuyu imaam yi ci gox bi ak chef de quartier yi ci turu Cheikh Abdou Karim Mbacké Fadilou di nuyu nuyu mboolem kilifa yi nga xam ni ay kilifa ci yoonu murit di ay magi taalibe ci tuut tànk yi nga xam ni ñoo taxawal bis bi te nekk ci gox bi ñu nuyu bu baax njabootu boppam bii mu fi àndal ak ñi mu fi fekk ñëpp ak mbooleem ku fi teew di sant bu baax ñi nga xam ni ñoom la àndal bi muy ñëw waaye di sant mu wax ni moo ngi leen di ñaanal yàllaat ci barkeb Cheikh Ahmadou Bamba barkeb Cheikh Mouhamadoul Fadal mbooleem lu ngeen yéene mbaa ngeen bëgg ko yàlla na yàlla kàttanal leen bàyyi leen ngeen dund ba ngeen teg ci seen bët ci barke Serigne Fallou Mbacke barke Cheikh Abdoul Karim mi nga xam ne mooy sunu wasila li soxna si waxoon moo gën a rafet lii ma wax waaye lu ci dëng na ngeen xam ni matatik doomu aadama la waaye soxna si daal sant na leen cant goo xam ne am na ab tàmbali waaye amul yem waay ñu jàpp nag te góor góorlu ma waxaat rek waxi sëñ munta xaaja sëñ munta xaa barki dim rek dim rek ci àjjuma a barki dim ci alxames bi mu jaaree ci jumaa ji nga xam ni doomi sëñ Moustapha Basirou ko tabax ci kër ma jabel daf ni ko sa taxawaay bi ab soññe la ci moom ndem sëñ Muntaxa nag mooy gis jëf ju ab murit jëf mu def ko soññee rawatina ñun ñi nga xam ne ay dongo yu xeebu lanu ay jaam jaamaat lanu si yoon wi kon lépp lu nu wax ci lu baax ak sant bu nu sant ak ngërëm lu nu gërëm na doon ab soññee boo xam ne day daas sunu pas-pas ñu sampaat sunu xel sàkku ji leneen ngërëm ñun mboole seen taalibe ñoo ngi leen di sant ñoo ngi leen di gërëm li soxna si waxoon moo gën a jub والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جن بالمحق يرجف نعجب Lalu kau ini degil, degil.